ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fou ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu aca mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee léegi nii rek ci bunt stade bi nuyoo ak Marley dañ koy nuyuwaat bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom ci combat bi mu dëgmal bu bëree ak ndaanaan nag yaakaar naa ne moom xam na ne ndaanaan la sax ndax fekk naa ko stade yàggul dara ma ne ko ndaanaan ngay bëreel mu ni ndaanaan su bëggee wane boppam dëgg day daan ndaanaan Marley maa ngi lay nuyu di la ziar euh, maa nuyuwaat. waaw maa ngi fayaat di la bu baax a baax waaw comme ni nga ko waxee rek fekkoon nga ma stade fii si arène nationale bi ne ma ndaanaan ngay bëreel ma ne la ndaanaan bu ñu bëggee ñu xam ne ndaanaan la day daan ndaanaan. waaw te incha allahu rabbi noonu lay demee. noonu lay demee bu neexee yàlla. nga nuyu mbokk internet yi nuyu waa géej waay ak waa fan waa waala nga wala waa waa bawal. waa la laa waa bawal laa waaw. waa di nuyu mbokku internet yëpp xam nga di nuyu waa géej waay bi ma jógee. Mhm. di nuyu sama waa dëkk waa laañaar xam nga waa ñingeen. Mhm. waaw waa bawal yëpp tamit maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax a baax. Mhm. waaw di leen nuyu yéen tamit bu baax. di leen wax ne seen teewaay kontaan nañ ci bu baax a baax. nan moo la boole Bawol da nga faa juddoo sa maam moo la fa juddoo wala sa papa wala sa yaay. waaw sama yaay fo la juddoo nag waaw ah, sama yaay Bawol la juddoo. Mm-hmm. Mm-hmm. ci côté yaay Bawol Bawol nga. sama côté yaay Bawol Bawol la waaw. sa côté papa. sama côté papa Gandiol Gandiol la. Gandiol Gandiol fan la nekk ak. Gandiol ñun moom waa Paal lan ñu quoi. Paal waaw. waa Paal lan waa Njawañ lan tamit. Mm-hmm. mbër moom yaakaar na moom ak lu mën a am boo duggee ci làmb rek moom foog nga xam say mbokk fu mu nekk. ah mënut a ñàkk. ndax làmb. waaw mënut a ñàkk mënut a ñàkk de parce tamit li ñuy wax rek. Mhm. ku bàyyi say mbokk moom da nga dem fekk xam nga. ànd mbokk jàmbur. am ay mbokk jàmbur yoo xamante ne bu ñuy waxtaan dañ lay ber. Mhm. Mhm. fan nga juddoo yow géejawaay nga juddoo kon. waaw yëmbal laa juddoo nag. xam nga. waaw yoroo géejawaay màggee géejawaay. ok yow daal moom vraiment yeesaar nga. bu baax xëy. cent pour cent cent pour cent. Mm-hmm. nga juddoo mara ci lan la ci maanaam ci lan lan la def mi nga xame ak léegi jàng nga école jàng nga arab jàng nga alxuraan lan lan nga def loolu laa bëgg xam quoi sa parcours. waaw jànguma école nag mais jàng naa alxuraan. waaw jàng naa alxuraan sama koñ arab bu Oustaz Gueye jàngee naa fa. Ah. xam nga alxuraanu maam. Abdou Gueye tamit jàngee naa fa. lan ah. moo tax jàngoo français. <laughs> waaw français rek moom wax dëgg yàlla xañ na li naan suñu borom moom lu mu dogalul si yow du am. Mm-hmm. mais tamit boo tollee ba moment bi xam nga da ngay rëccu lu tax ko quoi. oui mais nag bu démb doon tey moom dañ koy jàng. arab arab bi sori nga ci jàng weesul daal. arab bi sori nga ci. alxuraan bi non nag. Mm. waaw mais alxuraan. daal li li nga xamante ni moom mooy. farata gi moom bu ñu waree julli moom lépp lu ñu war a def dinañ ko def ndax dinañ ko xam ay doomu jullit lañ. fan nga yem ci alxuraan bi nga jàng alxuraan bi nga nekk ci daara ja. <laughs> waaw ah, man nag soriwuma si. ban saar nga xam nga soriwuma si quoi non wu <laughs> soriwuma si moom. fan nga yem soriwuma si. xam nga ak nga. ma amayata mais daal l'essentiel daal moom maa ngi ay saar yoo xam ne su may julli xam nga. waaw dama koy matale mën naa julli daal. lan moo tax soriwul jàngoo. xam nga rek tamit. alxuraan bi jàngoo français. waaw waa tribuloon naa trop moom waaye mais nag tribul bi tribul bi moom mooy xam nga yeewu fajar teel. Mm-hmm. waaw nekk ci xeex rek burul jeex comprendre nga. xeex suba ba ngoon xeex suba ba ngoon. lu ma amoon moom moo ko gën. mais na ma nag man gis mbër boo xamante ne laaj nga ko mu ni bi nekk xale dëkkul ci di xeex. <laughs> waaw man moom sama waa koñ bañ ne ko ba buñ ma gisee ni sax danaa non non kii nekkul ki doon gis démb. parce que démb da ngay tribul xeex xam nga. Ah. waaw ñu ne dañ lay sax moolu. nga dem tabax compre bu baax dañ lay sax moolu. Uh-huh. mais lu ko waraloon nag damay ànd ak samay gaan dañuy xeex mais xeex man dama koy récupérer. Uh-huh. comprendre nga. voilà su ko defee nag weex dunk tamit après da ciy am. lépp sama kaw lañ koy teg ñu dem ba tuddee ma ës. comprendre nga waaw xam rek. Uh-huh. tamit ku yàgg si xale dof daal. ñàkkul moom ñàkkul ni nag moom xam naa ne. xeex nga fi bés boo xamante ni dóor nañ la dóor yu méttee méttee méttee méttee moom. waaw xeex moom loolu. loolu mënu see ñàkk ah xeex moom loolu mënu see ñàkk. Ah. des fois da ngay gagné fois da lay gagné li naan li boo njëkkee dóor rek da ngay gagné. Ah. waaw des fois moom damay ñëw indaale ay gémmiñ gu toj wala bët bu néew yi xam nga. sama yaay moom bu ma ñëwee moom day xam ne moom man si suñu ma nekk laa nekk rek. ndax ah. moom moom du kalaame ci kenn mais dañ koy kalaame rek. Mm-hmm. waaye. bi nga amee ñaataat nga dem nga dem taxu géej waay non bi may nekk benn la waay ak yëmbal ñun fu ñu dëkkee. Mm-hmm. benn la que maanaam comme ni ma la koy mën a waxee lii géejawaay la lii ah. yëmbal la mm-hmm. comprendre nga. waaye teg Touba la demee. Ah. bi nga xam ne nga nga nga dem tuxu géejawaay. non bi may ni presque presque daal sama xale yëpp géejawaay la. nga xàmmee daal voilà géejawaay nga xàmmee. géejawaay laa xàmmee. Mm. Mm-hmm. jàng métier. jàng naa métier soudeur waaw. est-ce que suudar waaw waaw suudar yàgg naa si de. Hmm. wax dëgg yàlla. nga defar fourneau. waaw ban fourneau. <laughs> wala fer. non yooyu kay moom yooyu moom emprunté yi ñoo ko moom. Hmm. mais moom ñun yàgg nañ si menuisier métallique wax dëgg yàlla. kon yow instant bii nii soo bàyyi woon làmb mën nga dem ubbi sa atelier. non su ma bàyyi woon làmb moom damay continuer sama liggéey moom moo tukkiwul. Ah. waaw mais mokkal nga ko ba même soo tukki woon mën nga ko liggéey foofu. bu ma tukki woon moom yàlla dafay dogal moom laay liggéey. Ah. waaw métier bi mokkal nga ko. métier bi yàgg naa si. mokk na trop wax dëgg yàlla. Ah. ndax moom rek laa xam xaw ma leneen. Mm-hmm. waaye. jàng beneen métier bu dul bu dul métier. non non nekkuma si. xanaa non presque. waaw li ma maanaam li ma def si liggéey yëpp loolu la quoi. ok lan moo la dugal ci làmb. làmb waaw samay mag ñoo si nekkoon muy Pape Thiam numéro un. ak réparé. ñu nekk écurie ñoom Bébé Saloum boobu écurie Kayor la. ñoom ñëpp ñuy entraîné xam nga. Mm-hmm. may ñëw di ànd ak ñoom di leen seetaan si Pape Thiam ko maa ko teel cumbukaayam. samay grand laa seetaani. Mm-hmm. ma dem xam nga rek booy bu ñuy contact mooy nekk si yenn booy di contact affaire yooyu noonu. ki nga xamante ne mooy Marley un instant bi école de lutte Djimbory mooy seen ne ma mbër nga ma a ko déedéet mu ne ma damay ñëw ma inscrire la mhm. xam nga mu fayal ma mille cinq cent inscrire ma xam nga ah. ma commencé tax sër nag di contact école de falaa njëkk a taxee mi ngi nekk écrit Kayor falaa njëkk a taxee sër kooku mhm. moom ma njëkk a taxal sër moom mhm. waaw mais nag lamb yi moom dama ko doon si sama maam daal sama maam moom yow da ngaa bokk ci mbëri doon lamb léegi mbapat lan nga jot jaar ci mbapat ñan nga jot a bëreel mbapat surtout mbaru Pikine yi nag ah. ndax xam naa ne waa géej waay Pikine moom laale ngeen lu bëree bëri bëri ci mbapat waaw mbaru Pikine laa laale nañ mbapat parce que booy ñaa booy xool soixante-douze heures mbéygéey mujjee am moom mooma éliminé woon quart de finale waaye ah. nan la la daane waaw dañoo daw jàppante comprendre nga mu daw pour di ma bëtt ma def rotation wéer mu daw dàq ma ak caxabal may tourner def kat kon léegi booy ñaa yàgg naa sonal waa géej waay moo tax. non du question rek xam nga booy ñaa maanaam defet yi nga xamante ne nii moom la daan waa géej waay lay tudd si mbapat mais Pape Thiam mii ma lay wax nii toogal naa ko cumbukaay mu daan ko. Thiam numéro a Pape Thiam numéro daan na géej booy ñaa. bu baax. Ah, ak kan nga fi bëri laat mas nga bëri ak Ama Baldé non non Ama mosuñu bëri bokk ngeen eh, géew bëri. non mosuñu bokk géew bëri. kan nga fi bëree laan ba pare ci gaa yi gën a xam. waaw non Pikine moom bu dee gaa yi gën a xam foofu noonu boo ñaala fa bëreel ba pare. loolu ban année woon. loolu presque ay xanaa ay deux mille deux mille neuf daal boo xool. ay deux mille neuf deux mille daal. Mm-hmm. côté yooyu lay doon. soixante deux mbay gi. soixante waaw. boobu lese nga bind woon. waaw ñu woon si lese. kañ nga sentir nii war nga mën a dugg ci ci ci lutte avec frappe bi loo xalaataloon su bopp la wala sa staff ñoo dem ba gis ni yow kon instant bi am nga doole bi am nga bëre bi qualité yëpp mu ngi ci yow pour nga bëre lutte avec frappe. waa man nag boo gisee sama tur dafa jiitu ci arène bi. maanaam mbapat nga amee tur yow. laa amee tur damay bëre di bëre di bëre ba supporters yi ne ma mbapat bi doy na. Mhm. arène lañ bëgg comprendre nga. Mhm. sama doomu nday Pambaay ma koy nuyu fekk muy ràññee benn côté bi may ràññee benn côté bi. waaw ñu ne léegi suñu suñu combat lañ bëgg. waaw comprendre nga. Mbapat yàlla dogal ñu bëre Mbapat combat bu metti mm-hmm. man ak moom ñu niil bi ñu niilee ñu bëgg ñoo tëgg arène. waaw ne non non loolu duñ ko nangu ndax géejawaay lan. Mm-hmm. comprendre nga. ma dem am combat fenn moom mu dem am combat fenn sëñ Mourou mu dogoon combat muy làmb banlieue Estade Ndiarème. Mm-hmm. nga bëri sa premier combat daan. daan waaw. sa deuxième combat nga ko. deuxième combat mu bëri ko ak trompeur mu daan moom. trompeur. waaw trompeur xamaan dañ koy États-Unis. kañ bëri woon ak trompeur. kan moo ko tëggoon Assane. non non sëñ Modou moo tëgg sama premier combat moo tëgg sama deuxième combat. mu daan la sa deuxième combat. waaw découragé wala nga ni garaaw. non non yàlla jéem ma jàpp. Mm-hmm. waaw ma jàpp ñëw ñëw troisième combat bi bëri Gris Junior daan ko. Ah, bu parcelle. waaw bu parcelle. waaw ñoo si jugee bëreeg euh, laay bay bu ma juumul daan ko. Mm-hmm. wulli. Mm-hmm. xam nga. waaw bëri ngaa wulli. wulli mm-hmm. waaw. bëri na ñëpp mais nag kaama la ñaar man wulli bi ma koy daan dafa nekk si ay dynamique yu baax de. dafa naqaree daan boobu. moom kay ba léegi sax neexu la daan. voilà comprendre nga. maanaam comme ni ko. maanaam comme niñ koy liwér des ngay jàpp mbër daan ko fekk bi nga koy daan waaw waaw dafa am si dynamique bi mu toll comprendre ndax man dafa man dafa am loo xamante ne nii dafa nekk si man hmm. combat yi ma bëree yëpp yëpp yëpp dafa métti kenn ku si nekk nag bi may bëree ak dafa fekk nga toll si Pape hmm. Cambourine bi may bëree ak moom kenn ñeme ma koo laal waaw Pape Cambourine ak Sarigo voilà comprendre nga bi may bëree moom nit ñem mbër ñeme ma koo laal ma ñëw bëree moom daan ko hmm. comprendre nga tafaatin dëyit mooy bëreeg moom kenn ñemewu koo jël. stade bu mag ba nu mu tuddati. Oh, voilà. Assane ko tëggoon Assane moo ko tëggoon. comprendre nga. Mhm. voilà ma ñëw daan ko. Mhm. Mamadou Ndiaye bi ma koy jël ñëpp dañ ko dañoo jox avance ku nekk. mu bañ. ma ñëw bëreeg moom daan ko. Laay Pythagore. Laay sama diggante ak moom. dafa daan soxu. daan jadlil. comprendre nga ñëpp bàyyi ko fi kenn nangu koo laal. te mhm. dama ko daan. est-ce que waaw ma ñëw jël xaadim Sarr. comprendre nga. daan ko. Ousa 2. Mhm. sama diggante moom tamit xam nga. Mhm. gis nga ni mu demee. waaw yàlla mooy ma si ndam. Mhm. comprendre nga. waaw ma ñëw bëre kii waaye nu mu turati Farouz. comprendre nga. waaw moom it mu ñëw indi nekk si dynamique bu baax. Iba Mar Diop nga kon man. waaw Farouz yaa ko daanoon Farouz maa ko daan da nga ko caxabaloon yaakaar naa. dama ko caxabal waaw. comprendre nga. kon ñun nekkuñu koo xamante ni maanaam waaw. maanaam palmarès voilà palmarès non bu baax. man sama sama man ay champion rek laa bëreel. te làmb yi ma bëre yëpp bëri na sama morom yoo xamante ne buñ ko bëroon heure bi du leen dégg. Mhm. yàlla xam na loolu. ñi ak ñi fi daan ñëpp. comme ni nga ko waxee laay Pythagore bi bi nga koy jël. Mhm. fekk na mu tegale soq ak jënd. est-ce que fii mooy sa place ci làmb. non non fii du sama place ci làmb xam nga doguma la foofu sax boo xoolee li xaw a tardé sama yoon tuuti rek mooy des fois gars yi dañuy xaw a moytu ndax da ngay ñëw ba egsi ñu xaw la moytu comprendre nga. Mm-hmm. di dem di jéem a xooli beneen côté. Mm-hmm. te pour man làmb doxeetul noonu quoi mm-hmm. ñun ay jeunes lañ bu dee feetal stade dañ koy def. bu dee ambiance dañ koy def. bu dee bërëb bu rafet dañ koy def. li ñuy wër si mbër. yaakaar naa mi ngi si ñun quoi. Mm-hmm. kon yaakaar naa bu ku ku ñu làmb boolee tamit xam nga dafa war a rafet daal ñuy bëree. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi defet yi foog nga ñëw ci kan ak kan moo la daan. waaw defet yi doomu Jalaaw moo ma daan. doomu Dangu. trompeur. trompeur ak euh, Diène Kayre. waaw ah, comprendre nga. man ak booy bawal moom ku ne gis na nu mu demee. mais euh, kan waaw non loolu du loolu loolu loolu mënul nekk ndam da jàpp mbër topp ko dóor ko ay rafaal mu daw ba génn stade bi. ma non non non du question de stratégie ñemewul taxaw pour xeex ak man ñemewul taxaw pour bëre ak man. Ah. comprendre nga. Ah. bi ma dawee sëpp comprendre nga def trois appels laa def. Hmm. maanaam sama tànk bii nii bi muy sam sama ñaari loxo yi moo ñëw bi muy jug beneen tànk bi moom moo samp quoi comprendre nga. maanaam man wuñu. gis nga yaa ngi waaw mu daw Malick Ngom di woote waat benn superviseur bi ñëw wax ak moom ñu joxe victoire. Ah. te li fa amoon neexul kenn. Mm-hmm. comprendre nga. amateurs yi ko waa parce que loolu daf ma daloon sama diggante ak euh, kii Valdo. Mm-hmm. dañoo ñëw bëre lu yàgg. comprendre nga. Mm-hmm. bëre bu metti xeex xeex bu metti yàlla dogal ñu waaw bëri daal ba ñëpp bég. xam mu daw ma daw di ko dàq caxabal mu daw di ma dëpp. bu ma dëppee nag ma def trois arbitre di ñëw àtte. jox ko victoire. comprendre nga. beneen arbitre di contesté pour ñu war a ñëw bëri arbitre bi lay joxe victoire. ma def recours ñu def sans verdict quoi. combat boobu sans verdict lañ ko lañ ko def. nga ci am sama manager moo ma ko. Ah. parce que dañu dugal recours. Hmm. parce que Lamine Samba mi ngi rapporté mais mi ngi naan Valdo daan na Marley par difficilement. Ah. comprendre nga bu ah, baax. mën na la daan difficilement mën na la daan. parce que métti na. waaw métti na mais man man man man du ma bañ ah. defet ah, parce que xam lu tax Iba Kane ak ak Abdoulaye Demba rek gëstu ma loolu waaw man du ma bañ defet de hmm. ndax damay daanaate moo tax buñ ma daanee damay nangu hmm. trompeur daf ma daan jël bu leer ah. yaa ngi dégg doomu jalaaw ak doomu dàngu dañ ma daan jël bu leer jën kayre daf ma daan jël bu leer hmm. comprendre nga boo xamante ne amul ay werante amul ay dara isaay man ñi ma daan ñëpp amul ay werante waaw ah, mais mais sa diggante ak Boy Baol moom li yi wax CNG dañoo dañoo confirmer victoire bi dañoo confirmer victoire bi waaw dañoo waaw ba tey mën na nekk yow mais man moom loolu mënu ma ko jàppee défaite mais <laughs> non non non non loolu moom bu bàyyiwul woon xam naa di nga fayu non bu question la bu bàyyiwul woon sax moom bu fekkoonte ne mi ngi si làmb yi tamit du ma xëcc si moom parce que xam nga man man damay bëre grand combat moom mooy bëre spécial. Mhm. comprendre kon loolu méttiwul daal. ok loolu am na solo léegi nag ñu wax ci la vingt cinq juillet incha allahu rabbi mhm. sa diggante ak Nekkureel foofu moom jël leer la fa amateur yi day xaar moom. xaw ma yaay daan. Mhm. xaw ma moom moom mooy daan xaw ma yaay daan. xaw ma moom mooy daan. waaye jële ba moom incha allahu rabbi gëm naa ne dina leer. non man kay maay daan bu neexee yàlla. xam nga Nekkureel. xam naa ko bu baax bu baax a baax kay. nga xam ci moom. boo fàttee ma fàtte leen. ah li ma xam si moom mooy mun na bëre. Mhm. am na fit am na doole te li ma gën a neex si moom mooy bu arbitre bi sifflee day ñëw dox sa kaw. mobile dani ma. Mhm. da bëgg ay tànk. moom mu bëgg joxe ay tànkam. Mhm. loolu muy yëpp da ngaa bëgg bëgg ku jël ay tànkam. waaw non moom sax moom bu bu taxawee sax dëggal boppam ma dëggal sama bopp jaru ma wëri tànk yi. kon da ngeen xeex. nañ xeex bëri. non xeex kay bu ngeen ko defee. njool ndaama du xeex ak njool def marle. non non loolu dara ndaama mi xeex ak njool di duma njool. ñeme ngaa taxaw nekkuréel la taxaw ngay weccanteeg moom ay coup ba kenn wadd. Ah, loolu moom du dara loolu moom yaakaar naa côté yooyu ñu ngi siy liggéey si côté yëpp. Hmm. Hmm. non man kay waxuma yee ba xam yéen a ngi si léegi ndax am nga fit bi laa wax. ndax ndax waa géejewaay danañ la bàyyi. déggoo li ma la wax man géejewaay seen jëm bopp liñ may njëkk a waxloo sax mooy wàññil sa fit. ndax bëri na combat yoo xamante ne yaa ngi koy ñàkk mais sa la koy xañ. sooy bëgg adversaire ñu ni moo la man nan la lay def nan la lay def parce que loolu ñàkkul yaa ngi koy dégg. mooy li ma la wax léegi nee la dama sànq si biir wax ma ne la fi ma jaar. Hmm. bëri na sama morom yoo xam ne buñ fa jaaroon heure bii duñ leen tudd si làmb. Hmm. ndax damay bëree ak adversaire yoo xamante nii buñ ci ñëw rek danaan marle buñ ko jàppee tey ñu rey ko te man combat yooyu moo ma gën a neex hmm. waaw. mais dama sooy bëreeg mbër ñu ni moo la man lan la lay def. loolu ma la wax da lay da lay motiver. da lay gën a yokk jom li ñuy wax ni wax est li nit ñi xam nga nit ñi mën nañoo wax côté boobu noonu comme nekkuréel comme nekkuréel moo mën mm. mais nekkuréelu taxaw man mukk ne moom moo mën. sañu ko. déedéet <laughs> comprendre nga. Mm-hmm. mais ñi nekk si ginnaaw mën nañoo contester mën nañoo wax. mais man ñi ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Ah. waaw xam na ne man nëkkuréelu tollu ma fenn. nga xam say qualité. Ah. xam sa fit. Ah. xam sa njàmbaar. laay wallaay xam na ne maanaam bu arbitre bi sifflé ba dara desul lu man a moom si géew rek waaw xanaa sama bët xañ ma leen li ma jaaxal daal moom ñi ñi ñi ñi ngay laaj ñëpp ci combat bi dañ naan la Marley nag am na combat dëgg <laughs> parce que vrai technicien lay bëreel. waa Lansar boo leen laajee sax dañ naan Nakourel la dàq bëri ci làmb ji. Euh, non man mbër yi loolu la ñu. non man Nakourel dàq mu bëri bokkuñu ay qualité bëri sax ay qualité bëri. waaw ah. bokkuñu ko sax bu dee ku xam làmb nag laa wax mhm. xoolee da ngay xam ne bokkuñu ay qualité lan mooy say qualité yow ngay mbot da ngay ah. caxabal da ngay bi. da ngay nooju man moom damay bëri lépp. loolu man lépp dama koy bëri. no mbër kay xanaa dina am fu mu foore ak lu mu mën a fu mu mënul. dama ne yow lamb lépp. dama ne man damay bëre lépp laax. da ngay da ngay bëre tànk. damay bëre loxo damay bëre tànk. da ngay jékki bëri di bëri. yàlla xam na loolu. ban combat nga mas a jékki di. non combat yi ngay ñëw man xam nga nag luy sama problème mooy saa su ne bu may bëre ak adversaire rek damay bëgg man li si am ma koy def. Mhm. ba bu may am dam wala ma koy ñàkk parce que Papa Kane dafa am lu mu ñu doon wax. mu ne kuy wuti. waaw ah. moo ëpp mille chance kuy xaar. dëgg la. comprendre nga. moo tax boo xoolee sax ñun école de lutte Papa Kane mhm. ñu si bëri seen combat bu arbitre bi sifflé bu ñu xalaatee tuuti dañuy doon wuti. Mhm. yéen attaqué daal lañ leen jàpp. voilà ñun loolu lañ xam ñun loolu lañ xam. est ce que mën nañoo xaar kon le 25 nga dox ci kaw nekkuree la fu mu taxaw nga fekk ko fa géew ba moom kenn mënut ko. Ah, gis nga géew arène nationale bi kuñ fi jox avertissement rek merto nga ko ci génn. Mhm. géew bi dafa yaatu. dëgg la est ce que mën nañoo xaar arbitre sifflé nga jeex ko ci géew fu mu taxaw nga fekk ko. non amuñu amuñu loolu luñ ciy xalaat. ndax ndax xam nga lu tax. yaakaar naa ñi ñu bëreel Nécko la gën leen a tàng. ngay kontaanal. maanaam ñi ma sax si ah, làmb ji. Nécko la gënu leen a tàng. te yàlla dafa dogal arbitre day seen kaw. comprendre mhm. moom nag lépp loo xamante ne lu ñu war a def la ñun si làmb ji. ni ñu koy liggéey mhm. comprendre nga te incha allah le jour yi dinañ ko matale. ta di nga dox ci kawam. lu mu laaj rek dañ koy def. <laughs> loolu la laaj man kay attaqué la man kay su ma la yoroon dama naan la attaqué ko fu ko fa. dóor koy ah, góos duraat. mais yàlla baax na yàlla ñu si yàlla yóbboo ak jàmm nga ay combat ne ko réel la yu mujj yeeg mën na mën naa sax yu njëkk seetaan nga ko. ban adversaire nga mas a gis mu egg ko foo xamante ne yow leer na la ni soo ko fekkee di nga ko di ko daan. non man nag moom bàyyiwuma xel yooyu de. mais seetaan ngay combat moom billaahi wallaahi xoolal non kaa ma wax la benn affaire man duma am combat mukk ak ki ma war a bëreel naan damay dugg ay YouTube wala damay xool lii pour di xool ay combat am ak dara. seetaan nga combat am ak Tyson 2. seetaan naa am ak Tyson ko. ban def combat am ak nga non man moom xaw ma erreur bu mu def xam ne moom moo xam erreur mu def. waaw mais man xaw ma erreur bu def. combat am ak Sa Thiès. seetaan naa ko. ah moom moo ko xam ne man moom wax dëgg yàlla mënu ma xam moom lu nekk ci moom. quoi ñi gis nga leen moom moom moom moom moom kii seetaan nga naa ko waaw boo ko fa eggee. ah mais daal man moom du ma Ndande Fall Ndande Fall du man. ko ak ñi mu doon daan daal. <laughs> non du man daan Fall Ndande Fall lu man du ma ñim doon bëreel te ñim doon bëreel du ñu man waaw hmm. lu leer laa lay wax. da ngaa bëgg tànk léegi boo ne coppe tànk benn tànkam ndax laa mujj mën naa yem foofu. ah wax dëgg yàlla de moom. ay mboqam sax digaluñ ko loolu noonu. ñu jàpp tànkam yëpp nag ci ci tànkam la leen daaneel loolu mooy yëpp. waaw ah, baax na ay dóor tànk da wër. Hmm. yooyu yëpp da koy def. waaw ah, baax na loolu dara baax bañ àgg si loolu loolu doon problème. est-ce que am nga envie xeex ak moom nag. déggoo bëri dóor lañ wax. waaw bëri dóor mais am na ñu bëggul xeex. ah ñun moom lañuy. parce que fii jël naa fi mbër keroog fii nag fii nga toog la toog. Hmm. mu ni moom ñaanul yàlla dóor mbër mu daal. Ah, xam nga mbër nag dafa soxor comprendre nga mbër si biir géew dafa soxor mais après bu jeexee jeex na mm-hmm. ndax maanaam yéene bi ngay am sa adversaire yéene boobu lay am si yow mm-hmm. muy si cadre mystique mm-hmm. comprendre nga muy si cadre xeex muy si cadre lu mu la mën a teg rek moom day am benn yéene boo xamante ne nii day nekk si moom mais après bu jeexe yéene boobu day jeex instant yow ban njëriñ nga am ci moom dóor ko mu daanu. dóor ko mu daanu wala jàpp ko yëkkati ko ba ci kaw dóor suuf yéene boobu laa am de. dóor mu daanu ay. dóor mu daanu wala jàpp daan. yéene boobu daal laa am ndax moom yéene boobu la am moom. am na benn photo bu may gis temps yi di ko gars yi di ko statut tey ak démb. Mhm. photo baa ngi noonu photo bi. Mhm. mu ci forme te mu ngi contact contact mais loolu moom a gënal nag. Mhm. ñoom Coen Sarr. ñoom Siteu. waaw loolu moo ma gënal. moom lu mu lu mu lu mu lu mu gën a liggéey parce que xam nga comme tey jii nga ñëw jàppanteeg mbër daan ko xam nga ñu ne liggéeyul neexul daal mais lu mu gën a liggéey rek mu gën a baax. maanaam bëggoo ko daan ay yomb yooyu quoi. ah bu ma sañoon moom daan ko jëlu yomb <laughs> mais mën naa sedd nag. ah. mais ñu bëgg bëre bu neex ci ci ci combat boobu noonu. non combat boobu technicien lañ ko tuddee. combat technicien nag bu ko amateur dee xaar tey bari na ñoo nga xamante ne dinañ ñëw le vingt cinq juillet. Hmm. arène nationale seen combat boobu bu leen andi te pourtant faraluñ ci ñaar kenn. non combat bëre moom ndax ñaari bërekat lañ bëre moom waaw am xeex dina am bëre. maanaam dinañ gis lu ne ci combat boobu. waaw bu ñaar seen combat su weesoo. rent des ay grand combat rek lañ tëgg. combat yi tëgg yow ban nga ci gën a xaar bu passé seen combat maanaam bu rek ci dàq. yi tëgg yëpp a combat yi ñu tëgg yëpp a neex comprendre nga. Mhm. parce que tey boo si xool rek grand combat la. Mhm. est-ce que yaa waaw moo tax làmb yi mënoo maanaam mënoo see wax bii moom a gënal quoi. yëpp a neex yëpp a neex avant tout may ñaanal sama rakk Pape Thiam yàlla suñu borom may ko ndam. parce que yéen nag da ngeen am combat Pape Thiam njool waaye moom tamit njool lay bëreel. waaw non moom mi ngi si li mu war a nekk mi ngi si ay liggéeyam comprendre nga waaw te suñu xel dal na si moom tamit daal. <laughs> mission commando ni ngeen am non Pape Thiam Pape Thiam jàmbaar la. ah léegi Marley léegi man am na combat yoo xamante ne. Mhm. am na ci bés boobu foog man laaj la ci. Mhm. mobile Bour Sine. Mhm. noo gisee lay doon de. sa que combat bi li ma gis mooy ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ. Mm-hmm. ku si juum daal mën nga mën nga daanu quoi. ah mais dama bëgg nag nga décortiquer ma combat maa ngi dégg mobile. waaw ah. na bu loxoom téye devanture ngemb li. waaw jàpp ci ngembam daan ko. waaw waaw tamit jàpp si ngembam yombul ndax ni mm-hmm. waaw mais xaj na moom tamit. stratégie boobu noonu mu indi. Mhm. gëm-gëmam la waxee. waaw comprendre nga te li nekk si moom daal la wax. Mhm. Bour Sine nag dégguma ko wax mais combat la boo xamante ne nii. Mhm. xeex bi moom day bari. waaw. comprendre nga combat am day am xeex. waaw combat am day am xeex. parce que moom balaa moo taxaw jàppanteeg yooyu faaw mu dóorante comprendre nga. te mobile tamit bëre bi la gën a utiliser ndax moom la gën a mën. comprendre ndax xeex moom li naan mun a moytu ko mm. moo gën mun xeex mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne mën nañu xeex mais mënuñu moytu mm-hmm. comprendre nga waaw moo tax combat la boo xam ne bu naqaree lijjanti la daal ñaari ponk la ñaari ponk la na see am moom mm-hmm. bu ñu xeexee moom dóorum daanu mën na see am mu Laurent ak ak ak Boy Plateau <laughs> waaw combat neex keroog loolu a wax ci bi nee naa combat bu moom waaw combat du ko dàq ndax ñoom ñaar ñi ngi xas-xasoo daa mel ni sax ñoom ñooy grand combat bi ñoom ñaar moom bàyyi da ngay da ngay réew. dana dana andiwaale amateur yi combat boobu. waaye dina indiwaale amateur yi moom. gée géejewaay tamit du am trois combats ngeen am ci bés boobu. géejewaay waaw Eumeu Sène junior. lu si bëri quatre combats kon. Eumeu Sène junior moom it ñu ngi koy ñaanal mu am ndam. waaw quatre combats ngeen ci am bu Siteu. Euh, waaw bu Siteu da si bëree. waaye moom it xam nga. Mhm. ñu ngi koy ñaanal tamit mu am ndam. kon géejewaay nag le vingt cinq ñëpp war nañoo génn. non yow le vingt cinq yow gars yi bu ñu yéexee sax laa la wax nii xam nga mhm. gars yi dañuy jël essar bi de. arène nationale mbaaru dina yëngu. non dañ koy occupé de. laay lay la la. le ah? vingt cinq ah. géej waaye dama noon nañ bés xaw ma nag. non. déggoo ñu ne la. te temps yii da ngeen a neexle liiru ñaan li mu wax. liiru nee na kaar. waaw waaw waaw. suñu grand liiru moom it monument géejawaay. waaw ñu ngi ah. koy nuyuwaale xam nga. Mm. géejawaay daal ni mu commencé yàlla na terminé noonu ci saison bi comprendre nga. Mm. saison ñëwaat mu continué waat noonu. Mhm. waaw parce que tamit ñu ngi ci ay dynamique yu baax macha allah comme ni loolu liir waxee. Mhm. waaw di ñaanal Balla Gaye 2 tamit moom it yàlla may ko ndam du ma ko ñaanal benn ndam dama naan quatre combats yu mu jël. Mhm. yàlla na ko suñu borom may ndam ci quatre combats yëpp. am na quatre combats. waaw. Balla ndaanaan la. quatre combats yooyu nag mbër bu sañoon da nga koy am. waaw comprendre nga. waaw mbër bu sañoon ñu ñëw xam nga ne am ay avancé yu nii. nga quatre combats xool nooy def. parce que xam nga lu tax. Mhm. day tax da ngay gën a mën a pare. Mhm. comprendre da nga ciy nekk boo jugee si combat boobu noonu doo talaat leneen da ngay dem na ji. Mhm. ndax yeneen moo nekk sa kanam. waaw kon ñu ngi koy ñaanal comme moom. moo njëkk def loolu. waaw innovation boobu moom moo ko fi indi. Hmm. ah ni ñu koy ñaanal yàlla may ko si ndam rek. boo ñaan yaa ko wax sànq hmm. bëri ngeen ba pare mu daan la. Hmm. moom tamit am na combat digganteem ak ak Tafatine. waaw lan la war a moytu ci booy ñaan. Tafatine. mu door coup perdu laay ragal. rek na ko dal. voilà parce que heure bu arbitre bi sifflé boo ñaan cokkaas ko mu daw maamu pour dóor ko buy daanu du ko yëg. maanaam lépp ci xel la ko war a def. parce que day songu moo tax. kan boo ñaar. Ah. kon yow d'accord ci ñi ñuy wax xaar kan la. boo ñaar day songu boo ñaar arbitre bu sifflé day taxaw maanaam pour stratégie am waa bu arbitre moom day taxaw xool maanaam adversaire mu jàng ko mais sa loxo bu jugee ak sa tànk moom boo moytuwul doo ko fekkee. Hmm. Hmm. boo ñaar moom tamit lan la war a moytu ci Tapha boo ñaa moom li mu war a moytu si tafaatin mooy mu jël ku tafaatin. loolu rek la war a moytu ci tafaatin. parce que mais mais bëreeg yooyu noonu bëreeg bi est ce que. amul lu mu war a moytu non non maanaam Boy la. Mhm. tamit bëreekat la mais kenn ku si nekk am foo xamante ne nii fële la yi di gën a séntu. Mhm. comprendre bëre bi yow nga ci gën a séntu. waaw non day bëri. Ah. mais xeex bi day ëpp. Ah. waaw xeex bi nëbbu bëre. voilà te Boy Niang. mun na xeex mais utiliser wul xeex bi hmm. moom bu dawee cokaas boo moytul sa loxo bu jógee moom dem na yoonam hmm. comprendre moo tax làmb boo xamante ni kii bu sànnee coup perdu hmm. kee mun na am dara mais nag kee bu xoolee ba ku kee dal ko moom xam nga mën na indi leneen quoi kon ku ku Tapha Tine mën na jeexal làmb mën na koo jeexal moom ok loolu am na solo. Mm. rendez-vous bi le vingt la comme ni ma ko waxee rek ci arène nationale. Mm. Marley Nekorel Bour Sine ki nga xamante ne moom mooy. mobile tour Laurent Ndiago. Boy <laughs> Plateau Malick Ndiaye 37 fu. Bou Siteu Eumeu Sène Junior. Kalmu <laughs> Ndour vraiment combat yooyu bu waaw Pape Thiam Kool bu Zab yooyu yëpp ay grand combat ak Pokola waaw ñoom ñëpp war cee bëree. bëree. promoteurs yi nga xamante ni warante Dakar. Mm. yëkkati seen xaalis. Mm-hmm. dëgg yàlla def si. Mm-hmm. mu yàgg trop. Mm-hmm. mu nekk si li corona ba xam nga. découragé wuñu benn yoon. ñu nekk ñoo xamante nii tamit. waaw bi ñëwee ba léegi dara ñaawul daal. lépp rafet na. te yaakaar naa ne nit ku baax noonu lay def. ñun. duñ leen gën a gore ñoom. Mm-hmm. ndax ñoom ay bailleur la ñoom ñu yëkkati seen alal def si ñun. Mm-hmm. kon lu munti am rek dañuy toog xaar leen ba jour waaw. lu ñu joxe ñu def noonu. waaw te te mbëri mobilisé nag. non dañuy mobilisé mbëri yëpp nañ fexe andi mbooloo. yàlla suñu borom bi xam na ne man de si sama côté. waaw xam naa ne moom. ne nekk sama ginnaaw dañuy waajee sa ëpp na. daa mel ne réparé ubbil na la de. waaw non <laughs> ah ubbil nañu nag. waaw ah ubbil nañu te incha allah ñëw xam nga. topp hmm. relève rek. macha allah incha loolu am na solo kontaan naa ci yow. Hmm. looy tàggatoo nga woo say mbokk ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ci biir yi. Hmm. ak kaar waaw di woo samay mbokk xam nga di wax ne affaire ñëpp gis nañ ni ñu ngi waaj. te olof nag day faral di wax bu marché nag mag mooy ndugg. comprendre nga. te am na si lu ñu jot a jugee te am na si leneen lu ñu war a dem kon comme fi gars teg seen tànk kontaan naa si bu baax. Mhm. aussi de profito di sant ñi nga xamante ne it ñoo may jàppale bu baax comprendre nga. Mhm. ku si mel ne monsieur Serigne Serigne Diouf kooku ama fayam kooku moom mention spéciale. Mhm. ndax dafa def lu nekk ndax man daj lu nekk ndax man. comprendre nga. maa ngi koy sant bu baax. di ko gërëm. di gërëm sëñ Dramé borom mbéy bi moom gis naa taxawaayam si làmb ji. ñu ngi siy def loo xamante ni xam nga. Mhm. waaw lu waaw lu rafet daal. Mhm. gërëm sama xarit papa Base moom mi nga xamante ne moo tax ma xam ko. Mhm. waaw papa Base moom it sama xarit la sama waay la mi ngi ba Maroc. mais mi ngi mel ni mi ngi fii sama wet. mi ngi si affaire bu baax Badara tamit xam nga sama doom sama rax mi ngi jàpp si affaire bu baax. waaw Ngóor Fallou yoole comprendre nga. grand Pape Gueye étage bu Majala Paquetas. Mmh. jaas borom pikin xam nga waaw di sant ñi may jàppale ñëpp ñëpp ñëpp daal di bëggee sama mag daawra réparé moom mi ngi ba Gabon mmh. wax dëgg yàlla xam nga mi ngi jàpp ci affaire bu baax a baax a baax mmh. waaw manqué wu ma dara bëgg nga ci bëgg naa si moom lu ma soxla waaw ah. billaahi wallaahi su ma ko waxoon léegi léegi nii du fanaan bu dee dafa guddi bu suba teel jotee dama si jot kon kooku mag la boo xam ne moom mag la comprendre nga. Mhm. xam nga nga am mag ba pare te xamul ne mag la dafa dafa dafa dafa raar mais nga am mag ba pare mu xam ne moom mag la. Mhm. ndax ndongolo dafa ne mag bu la yokkatul xel rey ko. Mhm. comprendre nga. waaw mu ne ku ci am sarak. Ah. bu ko bàyyi xelam ndax yaa ko ëpp xel. kon ñun ah, suñuy mag dañ leen di respecté. jox leen cër ko xam ñoom ñoo ñu jiir ci àdduna ñoom ñoo ñuy dalal baa ñoom ñoo ñuy wax nii la ak naka la. man daal sama mag jooju maa ngi koy sant bu baax. di ko gërëm sant nga ko gërëm ko daal ah, di sant Kewa Thiam mi ngi wax Espagne. Mhm. Lamine Naar. Mhm. xam nga seen ngoom waaw seex. waaw di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp Baye Sall moom it mi ngi ba mhm. sant ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi bëggee. Maroc Baye Sall man la Baye Sall Dieng wala. waaw am na Baye Sall bu ma gis muy commentaire. waaw bokkut ak Baye Sall bu Baye Sall Cissé la quoi. waaye xam nga. di wax ñëpp daal. maa ngi leen di jox rendez-vous le vingt cinq. incha allah fii ci arène nationale fii ci arène nationale bi di leen wax ne le vingt cinq incha waaw dina neex dina yëngu te fi ngeen di xaaree seen mbër. Ah. muy fulla ak jom ak fayda bi ngeen ma xamee. waaw ah. dinaa ko indi te dinaa bëre dinaa daan bu neexee suñu borom. di gërëm ale nag. ni nga bëre xeex daan waaw dinaa dinaa xeex dinaa daan. wax ko waxoon kii Nekkureel la jàkkaarloo. dama ne Nekkureel man. nan tudd sax moom. pool Paul Gomis. ah Paul Gomis dinaa bëre dinaa xeex dinaa daan incha allahu rabbi ndax xam naa ne làmb ji man maa la ko gën a soxla te coono yi ma si daj dajoo ko si comprendre nga. waaw ni ma ko bëggee bëggee woo ko noonu. Ah, ah. billaahi wallaahi loolu lu ma leer la. lay wax ni barke sëñ wa taalaay coono yi ma si daj. man xam naa ne moom daju ko si comprendre nga. Mhm. te ni ma bëggee làmb ji. waaw ah. moom xam naa ne bëggeewu ko noonu. Ah? man man dama bokk ci mbër yi nga xamante nii dañ leen a yaakaar comprendre nga. Mhm. kon làmb ji li ma si war mooy ñëw rek bëre. waaw daan ñibbi. jërëjëf loolu moom moo si war. gën a ñëw écrit ba. Mhm. fekk la fi ngay contact yi ñu jël la. incha allah incha allah rabbi ci mhm. semaine bii di ñëw incha allah rabbi. amul benn kontaan nañ ci yow bu baax a baax. maa ngi a baax. di gërëm Rent Dakar yëpp nag. waaw waaw bàyyiwuma kenn. promoteur yu mag yi promoteur yu mag yi mhm. Alain Jimbo Pape Sarr. jaajëf comprendre nga. maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di leen bëggee yéen tamit. ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu junior mi ndaw ñi boole ak ki nga ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam numéro dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu